alhamdulilah mbokki jullit yi ñuy déglu ci àdduna bi yëpp ñu ngi gërëm xale bi tudd Baye Cissé Lamine ndax lii ci xilaatam la ci itteem la moom moo ñëw ne ma comme weeru koor nga ñu daan defal waxtaan muy jëriñ torop ren nag yàlla dikkee na mbir moo xam ne loola mënut a am ci tëralin boobu nag ñun dañ bëggoon nga seet benn heure boo xam ne bu jotee loo ñuy may ci ay minute ñu indi jumtuwaay boo xam ne jumtuwaay bi dana mën a jël nga waxal ñu ci weeru koor ñu tas ko ci adduna bi yëpp ñu déglu ko su ko defee kon fasuñ jataay pour waxtaan waaye nag waxtaan nañ waxtaan moom kontu ci rek na mbooloo mi daje na tasaaroo nit ñi déglu ko ak nu mën a demee rek loolu la ma kontaan ci moom torop gune buy sant mag mag ma de ko dafa fekk gune ga jub jub mu jub moo bi ma santee ma nangu ak it lii roy yonent bi ci la bokk yonent bi tasaare na xam-xam saaba yi jël ko ci ñetti xanam wax saaba yi déglu waaye duñ indi téere duñ indi tabla duñ bind ci tabla def ñu jis daal di jël jëf ja garde ko bu jëf jotee ñu jëfee ko jikkuhu ñu jël ko meloo ko bu jotee yett yi ci la jàngale waxtaan nag dafay am njëriñ lool ndax alquran tuddee nañ ko waxtaan musul benn yoon xam-xam yi dikkee ci yonent bi ñaar la hadisu qudsi yi yonent ko wax ne jëlee na ko ci boromam ak hadisu nubuwi yonent garanti ko alquran garanti ko ne in huwa illaa wahyun lu mën a am saaba yëpp boromi xam-xam lañ doonte rawante nañ ndax da ngay gis ñu ne ñii benn hadis lañ jàngale ñii ñett ñii junne ñii nangam waaye ñoom ñëpp jàngee wuñ ko ci tabla jàngee wuñ ko ci téere jàngee wuñ ko ci këyit yonent wax rek ñu déglu kon ci loolu nag ci lañ nar a dugg incha waxoon nañ keroog ci weeru koor tey dërsu biñ nar a jàngale mooy weeru ay point la point bu njëkk bi mooy lan mooy xam ñu mën a wax ne suba la koor lan mooy am ñu mën a wax ne suba la julli boobu ci waxtaan tey buñ demee ba ñu ne nag point boobu taxawal na dañu war oor wala dañu war a julli na nan lañ koy koor gi nan lañ koy doxalee xéene ji ndax dañ éene jar na éene wala jarut éene loolu point yooyu ci la ñuy waxtaane ak nag weeru mooy lan koor giñ giñ ma maanaam weeru koor maqaama la koor mooy oto bañ caay demee wala avion bañ caay demee waru waaye ba ñuy sukkandiku àgg ci ramadaana kooku lañ tuddee siyaam loolu lañ bëgg a waxtaane incha allah bi ma ko xale bi waxee ma ne ko nangul naa la ko waaye nag man aw ma jot kon par ñetti fan la eh, te masilan tey buñ ko defee tey altine ñu ngi koy war a defaat ak juma ci ngoonaat incha allah ci loolu nag weer wi buñ ko séenoo ñu ne feeñ na balaa ñooy nangu bay or ci ngërum imaamu balaa ñooy nangu ci ngërum imaamu Malik dafay fekk mu am ñaari seede ñaar te ñaar ñi it góor la ñuy dox wala benn góor ak ñaari jigéen te dañuy sarta sartaaluñ foofu sax nañ am xam-xam waaye nañ maandu rek nga gis jikko ni ko yàlla fooralee su ko su fekk Malik nee na loolu ci la ñuy mën a sukkandiku ne suba la ñuy xoor Abu Hanifa eh, eh, Saafi'i yu ne buy ci koor gi benn ñoom ñëpp ku ne andi na xadis benn seede man na buy ci korite nag ñaari seede yu maanu rek kon ñoom ñaar dëppoo nañ ci korite na nay ñaari seede yu maanu ci xoor gi nag ci la Maalik waxee ne nay ñaar Saafi'i yu nay benn ci ci eh, su maandu moo ba kon ñu toog rek ne Tamba am nañu ko fa gis Kidira am nañu ko fa gis li gënoon a rafet mooy ñu toppatoo ña ko gis ñan la ndax diina saf na leen buñ ne Elimaan jaa ko wax el do Elimaan taxuta am maandu do boroom xamxam xam am maandu maandu point la bu jët fi ci biir lislaam buñ ne maandu nag mooy yett yi doo tooñ nit ci deram tooñ nit ci njabootam doo tooñ nit ci xalalam lii su amee rek bon yow boole bu ñuy woo ñu maandu ni ko téere yi tënkee mooy mboolem liñ tuddee bakkaatu yu mag yi doo ci def benn yi nga xam ne yu ndaw yi la yaa ngi cay mooy te nekkul la nga man njaalo bakkaat bu mag la xam ne waaj du ko def mukk jigéen romb la ngay xilaat ci moom xilaat yoo xam mu génn bakkaat wu ndaw la kon nag ñu ki nga xam ne bàkkaar yu mag du ci def benn bàkkaar yu ndaw yi daf cee moytu ne ko kooku moo de ki maandu ku mel noonu nag du fen du jaxase du xas jullit kooku mooy ak yee ca yëpp kooku mooy ki maandu suñ amee ci loolu nag ñaar donte jànguñ suñ ne weeru feeñ na maali ne kon nag nañ xoor suñ ne weeru feeñ na ci xorite maali ne kon nag nañ ori safi itam d'accord na ci loolu <coughs> kon wax naa la lay tax ñu war a sukkandiku ne nañ oor suba wala nañ julli suba ñu indi hadis ñu ne yonent bi moo wax ne ci Malik ne ñaari seede bu leen ko ñaari bu amee ñaari ñaari seede yoo gis weer wi oor leen mu dellu waxati ne soo moo li ru'yatihi foor leen pour gis weer bu ngeen gisee weer wi tagg leen bu ngeen ko gisee gi ñu ngi ko tënk ci ñaar ñooñ ma wax la ca la ñuy mën a sukkandiku waaye rek tund sàngam gis nañ ko te lu ñu tu ñi ko gis ñan la bu baaxee it gën a lut lislaam kon loolu mooy maqaam bi eh, yonent ne koor mooy bés ba nit ñe koor bésu koor bésu dagg mooy bés ba nit ña dagg loolu dana ñëw si ci kanam ñu leeral ko incha allah kon ci loolu Euh, euh, ñu ne euh, asafri yu ne sukkandiku ne benn addis man na Malick wax naa la fam sukkandiku benn waay dafa ñëw ci yonent bi kaw kaw dikk ne ko man gis naa weer wi yonent ne ko ndax gëm nga ne yàlla ashhadu laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna Muhammadan rasuulullaah est-ce que seede googu ah, gëm nga ko mu ne ko waaw mu ne ko gëm nga ne man yonentab yàlla laa mu ne ko waaw mu ne bilaal yéebaane nit ñi bu suba nañ koor kon koo kenn la te ba mu waxee rek yonente dafa foofu la saafa yi sukkandiku ne bu fekkee ci koor la benn seede bu dikkee rek man na <coughs> li taxit Maalik teg ci itam beneen mu ne mbooloo mu bëri buñ dajee wax ne weeru feeñ na ndax dafa jàpp ne mbooloo bu bëree du ñàkk ñaar ñu ca maandu su boobaa looloo tax mu wax loolu kon loolu mooy eh, eh, eh, ñaari waaw weer woowu nag bu feeñee ndax man na ñu ne weeru réew sàngam gis na ko àdduna yëpp or ca wax jooju ñi ne man na tamaaman ci lu benn sarta ndax yonent fa ne soomoo li ru yët yi kon ñu la ko gisal rek te maandu sañ ngay sukkandiku ci seen gis googa dal di dem or comme ñooñu ñoom dañu mën na ci benn tënk mooy su fekkee ne réew yi bokk fu ñuy fenkee jant nga xam ne ci misaal sept sero bala am trente réew yi sëpp yëpp ku ne bi kon ku ci gis jant rek ña ci des mën nañ ku ci gis weer wa réew mu ci gis weer ci gis bu mën nañ waaye su fekkee ne bokkuñ fu ñuy jant kon kenn ku nekk ci euh, sa boppam maanaam ay doomam gis ko ca la mën a sukkandiku julli waaye doomi beneen réew buñ ko gisee mënoo cay sukkandiku julli xam ko ne nag ak lu mën a xew réew mu ne nañ julli ci seen gis ak bopp ci beneen réew réew mu ne nañ oor ci seen gis ak bopp waaye buñ sukkandiku ñoom it ñu sukkandiku ko ci e, e, kuray bu dañ ko yónni saam ba mu demee e, weeru koor fekk ka fa mu xoor bi mu ñibbisee Madina Abdullah na Abbas ne ko yow gisoon ngeen weer bokk nga seen gis weer foofu mu ne ko waaw mu ne ko yow gis nga yow sa bopp mu ne man gis naa ko maawee gis na ko nit ñi ñëpp ñu bëri gis nañ ko oor nañ maawee oor nañ kañ ngeen ko gis guddik ajjuma mooy gu mooy liñ tëddee ñun guddik alxames ba sedd ajjuma ma Abdullah ibn ne ko ñun nag guddik samedi lañ ko gis mooy ajjuma bu jant bi sooyee guddi googu duñ dëñ nag ñun de oor lu mooy ñu jisal ko mun ne ko doo sukkandiku ci gis ak Muawiya mu ne ko déedéet loolu la ñu digal kon saam réewum la spécial Hijaz réew la kon euh, Abdullah ibn Abbas daf ko bëgg a wax ne ko euh, bokkuñu réew kon waruñu mën a bokk jis euh, gis ba mën a julli kon ñooñu noonu la borom xam-xam yi nag suñ uutee yow bul enu bàkkaarab ñu ne borom yow moomu la diina ji dénkuñ la ko war ko cay yàq sa yoon newut qu anfusakum wa ahlikum naara eh, sa bopp ak sa njaboot ak bopp en lu buñ ko waxee mooy sa doom sa soxna ki dikk ne la yaa ma suma digganteeg yàlla def naa la sëriñ kooku mooy ahlu ñooñ ñooy ahlu ñooñ nag la yàlla wax booy feketal xay feketal ko ñooñ ña ca des nga noppi ci seeni problème kon borom xam-xam yi ixtilaafu ummati rahma teg sama xeet wi yërmande la bu la lëkkati rek demal ca booba ndem nag jublu xula ci noflaayoo ko noosee ko xasee ko keneen ndem jubluwa ci loolu man xalada aliman faqat salim képp ku roy ab xam borom xam-xam maanaam eh, masala bii nga def daal jëf jii nga jëf suñu la lu nga mën a wane borom xam laa déggoon te muy dëgg téere sàngam laa gisoon te muy dëgg yow wàcc nga ka tëral téere ba ak ka wax wax ja ñooy am problème ëllëg waaye yow wàcc nga comme noonu la nag kenn ku nekk la ko doy ka fa doy te ni yàlla defee ñam yi kii ñam yi neex na ko kële ñam wala naqari na ko kële it wala neex kii meññeet yi neex na ko kële noonu la defee xol yi it kenn ku nekk ak ka gën doy su ko defee kon nag nga bàyyi rek borom baqal lislaam di nekk ñu de ko xaw ndeg yàlla lislaam yàgg naa nit yàgg naay wëcci masala ki nga topp dem jëfee kenn ibnu asras benn borom xam-xam la woon dafa buur dafa dàqe woon ndaw pour bëgg koy rey mu daw dugg këram mu làq ko ndaw yi dikk ne ko ana waa ji jaar mu ne jaaru ñu ne ko ah ñun fii lañ ko gën a gisee mu kër ñu ne ko giiñal ne su fekkee mi ngi fi fase nga sa jabar ñetti yoon mu giñ ne su fekkee ne mi ngi fi fase naa ma jabar ñetti yoon ndaw i jàpp ne làq nit ki du ko jaral ñàkk jabaram ñu dem léegi nag ndaw bañ demee ba dem ndaw la génn mu xooy jabaram ne ko ah man nag def naa loo xam ne ngir mi wala ngirum Malick fa ne ko def ñàkk nga sa jabar parce que bi euh, ma koy wax fi waaye xaaral ma dem xayrawaan naa fekk benn borom xam-xam malaaj ko borom xam-xam yi ba yàlla de doo ba lislaam ba ñuy topp lislaam ngir yàlla dañ daan doy loo loo xamut nangu nga ne xam na keneen ko ko xam soo ca àggee nga dem laaji ko kooka waaye foog ne yow rek yaa xam foog ne li nga xam rek mooy dëgg loolu jikko yahóot la <coughs> yahóot yi ñoom ñoo wax ne eh, waxaalat yahóotu laysat nasara ala sihin waxaalat nasara laysat yahóotu ala sihin yahóot yi ne nañ liñ ne mooy dara la keneen ne du dara nasaraan yi ne liñ ne mooy dara la keneen du dara yàlla ne kazaalika qaala llaziina laa ya'lamuuna misla qawlihim ñi xam ñi xamut suma bu euh, tëddalinu suma diine ji moom lañ mel kat masala boo jàpp rek da ngay jàpp ne mooy dëgg ka ca ci dara loolu moo fees tey lu euh, euh, bëri ci affaire bi kon Ibn Azar dem laaj ko Bahlool Bahlool ne ko ngirum Maalik dafa ne du ko jël te lii ma wax wala boo demee ci jaami quran ci suuratu naxli da nga fa fekk xisa bii ma nettali la ba mu ne ko Malick nee na sa jabar aram na la mu ne ko loolu ba ko Malick ay tëddal maa ngi fa mu ne ko ah kon nag li ngay laaj ndax beneen borom xam-xam wax na ko wala ma ne ko ah ne ko buy loolu Xasan Basri yu nee na képp ku ko wax rek kettali nit sa jabar du fasu da ngay dëkk jëflante moom mu ne ko mbaala yooyu dem ci jàmm ak mu ñëw ne ko jabar ji gis nañ makkal masala bu ñu dale ñu continuer seen ab sëy kon kooku wàcc na ngiram ci mas dikk bu toppoon ngir ma rek ci ngiram naan li Malick Malick ga ko wax mënumaa kii waaye ñàkk jabar te wóorul jabar yomb na comme dit waaye bi nga xamee ne nag moom lu ko liggéey la bëgg dem na jës jëli kër Abu Yusufa mooy ki sos ci Abu Hanifa tigi mooy wàcc na seen ngir fekk si ngirum Malick ci lëj lëj boo xam ne su ko defatoon day am jafe parce que dafa dikk cib dëkk jumaa jot ñu ne ko yaay jiite bi mu sangu nag ci ndox moo xam ne teen bi mu ko biñ ko rootee janax daf ca dee mu sangu ca jàpp jiite jumaa ji bi mu sëlmalee ñu ne ko sëñ bi yow ndox mi nga sangoo ab teen biñ ko rootee janax fa ca dee mu ne wax ngeen affaire te ñoom seen ngir liñ àtte mooy ndox daal bu ci sobee na toq xamul bëri na amul tuuti na mën a tudd laab kon fi ne su bëggoon a topp seen ngir mi coono dana xam ndax dana dem wuti beneen ndox balaa di ko sangu nit ñi tasaaroo ñooñu ñu mënu leen a mu naa ah, kon nag nañ sukkandiku ci ngirum Maalik mi wax ne ndox ku nekkee ñaari bërigo ma su boobaa sobe mën a tut koy yàq comme teen bi la nag ëpp na ñaari bërigo kon xam nga kooku sukkandiku na ci masala bi kon kii kii naan eh, weer ja réew ma le mën na gis nañ ko nañ julli kii na duñ julli kenn ku nekk bàyyi ko ca la ko doy yow moom moo diina ji dénkuñ la ko bal ci xaste bal ci jëw xenu ci bàkkaar ba pare teru tere la waajabam def la mooy def yow mënoo koy teree sukkandiku fam sukkandiku kon kenn ku ne li ko yàlla na sukkandiku ca loola <coughs> kon loolu mooy euh, wax naa la bon gis gis gu weer bi lu ci des mooy xëy na xëy ñetti wax ñoo ci am Malik nee na éy ne ma mantu ñàkk ci koor Saafi éyu nee na éy ne mantu ñàkk ci koor te guddi lañ koy def bon ci ñoom seen wax soo xéenewul ba fa yar xar nga da oor waaye bis boobu da nga koy fay rawatina soo xéenewul ba bëccëg loolu la imaam ñuy wax abaani fatte ne xëy naa bëccëg man na euh, safru ak mujaahid ak xataa ibn abi rabaa ñu ne jarut xëy na ñett yooyu la wàcc xëy kon nag su fekkee loolu yow soo ko fàttee wala négliger ko ba fajar xotti bët set bul jàpp ne sa koor yàqu na dama naan rek aboo fata mi ne xëy na xëy na su boobaa sa koor du yàqu moo gën nga ànd ak Malick jàpp sa koor yàqu na man laay fay bés bi mu indi la jafe-jafe rawatina nag soo àndee ak safaroog ñun ñu yokkoon nga xam ne ñoom fa ñu wax ne na amut kon Malick fu mu ak saaf yi ne fokk nga xëy ne te guddi laay dox itam yonent bi dafa wax ne te ndey Hafsata moo solo addis boobu yonent wax ne ku fanaanoo téere ci guddi gi xamoo koor moom foofu la sukkandiku ba ne kon génne moom foog mu am te ci guddi rek lay am Abu Hanifa fi mu sukkandiku mooy benn bisu tamxaret yow mu asora mooy buñ reeree reer yi ci suba yonent dalde yébaane ne tey la tamxaret léegi foor gi du farata ci yéen yàlla defut ka muy farata ci yéen man nag maa ngi xoor kum fekkoon nga xoor continuer kum fekkutoon nga xoor itam te bëgg a xoor continuer sa koor foofu ci bëccëg kon kay kooka bëccëg lay yéene abooni fatta foofu la sukkandiku ba ne waaye daal li ma la wax su fekkee nga ko fàtte wala naxasaay bu bola kenn nangul yàqala sa koor gi naan la demal ànd sa koor gi baax su fekkee nag ngirum maali nga sa itte rek guddi gu jot nga éene fekkee ngerum saaf añ la guddi gu jot nga éene kon loolu mooy maqaama bi loolu ñaari point yooyu laa leen ci bëggoon a jàngal ci koor gi ndax itam nit ñi yàlla doomu aadama yàllaa ko bindee yomba son surtout weeru koor doomu aadama yàllaa ko bindee su xisa su bi guddee ba ëpp mën na am duñ ko mën a jàpp nañ ko war a jàppee te mu jëriñ rek lañ bëgg lekk moom bu tuuti baa bu baaba na na dëppoog yow te ci sa biit bi may la kàttan rek waaye lu mu neex neex te foor boo ko waccoo xamatul njëriñ ci yow kon nag masala it na ko mën a jël bu jëf jotee nga xam noo koy jëfee noonu la kon nag wax nañ leen fan kañ la ñuy woor lu koy waral wax nañ leen éene ji léegi nag siyaam ramadaana mooy gëlu safara boo xam ne xamut lu ko të loo ci dugal mu def ko safara ci saa loolu mooy ramadaana ya luñ luñ caay demee mooy siyaam xoor koor mooy lan mooy jàpp arab ba nee na xëyrun saa imun wa xëyrun xëyrun saa imatin yaa fas ña ngay yaafas yaa kon ngexeluñ kon ñàkkaa ngexel la tuddee la tuddee koor kon nag nga ba lekk ba sëy kañ bu fajar xottee fajar googu xotti nag ay dégare la dañu wax salaatu xayru mina naw mi te du tere nga mën a xëtt te lii boo demee ci téere bi tudd bi albidaaya wa nihaaya da nga ko fa fekk benn saa Usayfata ibnu Yamaan yi nee na bés dikkal na yónnante ci gannaaw buñ jullee fajar fekk mi ñu ngi xëdd mu ne man su ma neexoon ma ne bëccëg la parce que bët seet na ràññ cang xanaa kay jant bi moo génn gutoon kon nag soo su fekkee yow nga biddanti dégg jàkk jëlee ngay salaatu xayru mina nawmi xam ne jàkka joo noddoogul parce que bokkuñ fu ñuy jullee kee ngeen nodd Euh, six heures moyen fukki minute kii de salaatu six heures moyen fanweeri minute kii de ba mu jeex nga yeewu yow déglu kon ne ah gannaaw jàkk jële salaatu bu daal mën naa sukkandiku ci hadiis bu Usayfatu bi yonentu ne ko woon yonent waxoon na beneen saaba ne ko suñ ne salaatu xayru mina nawmi fekk lekk gaa ngi taajee faj ci sa soxla door a dem julli ji door koor <coughs> kon bu boobaa euh, le fa foofu la commencé mi ngi em ci bu jant bi soxee kon xëdd ngoog ci njël nga koy def num gën a yéexee moo gën a lislaam euh, nga nga nga ko kon ki euh, euh, lekk gàngoog ki bàngoog xoor gàngoog nga bàyyi lépp luñ laayee waaye bàyyi xaale nag yi koor mooy la la nañ lañ la xaaye ndikke na la ñu la tey nag bët seet na bu ko def xañ daganoon na la njogonal daganoon na la te dëgg sa jabar daganoon na la ci bëccëg kon lañ la daganaloon loola lañ la aaye ne la nag tey dañoo bëgg nga def ko jaamu yàlla waaye eh, yañ xaraamoon yooye ñoom fa gën a xaraam jëw fen lekkalal li jàmbur yi demee noonu na weeru day tax ñu fooral soo defee loo bon ci weeru koor bakkaat ba dafay dal di foor yonent bi nee na koor yooyu nag nga def moo laa yóbbu ci ramadaana maanaam ramadaana ma xamal la boo xam ne boo ci àggee sa bakkaar yoo ndaw sa bakkaar yoo rëy tout bakkaari wax bakkaaru bakkaar ñetti xaaj la bakkaaru cër bakkaaru xol fay no asi aasimun xel boo bakkaaru xel wayn tub doo maa fi anfusikum aw tub foofu yu xaasibkum bii laaw fa yaxfir li man yasaa wa yaasibu seen xel yi li ngeen cey corom-coromee di ko xelaat te nangu leen kenn diggu ko nga ñaaw gum ñaaw danaa ko topp ak yéen su ma ko toppee ba mu sës résultat bi génn may la yow yaa daan xalaat lii nga ne waaw su ma neexee ne la baal naa la su ma neexee bugga la kon bàkkaar ñetti xaaj yooyu la bàkkaari cër bàkkaari xol bàkkaari xel bàkkaari xol mooy rëy yéem sa bopp xeeb nit ñi naw sa bopp loolu mooy bàkkaari xol yooyu yëpp nag boo xàggee ci daana dafay far ñu jéggal la ko mu jeex mu jeex <clears throat> te dafay yóbbaale feeg ba weeru koor way del see diwénit loo fi def ñu jéggal la loolu nag si sëw mu gi mooy tax nga moo la koy may maanaam bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi sëy bàyyi jëw bàyyi fen bàyyi demee noonu mooy tax nga mën a àgg foofu kon loolu mooy sëw mu bu ñu demee ci suuf yanke gi nag suuf yanke gi suuf mooy xam-xam bi nga xam ne dafay dugg ci xol ni xaraf yi da duggee ci biir portable bi effacé message bi ñu la indi woon ba dara neexatut fa suuf yanke itam dafa am point yoo xam ne su duggee ci sa xol dafay far bàkkaar yi demee noonu dafay far rëy dafay far xiim sa bopp dafay far añaan dafay far eh, eh, xeeb nit ñi yooyu yëpp daf koy far loolu mooy suuf yaa ngi koy si nga nit ñi suñ si adduna gëm dañ ko waaye diina yàlla ji lañ des a gëm mooy ABC xarafam yooyu docteur yaa ngi ci ay liggéeyee noo xam ne eh, tribunal yi xamuñ ko tribunal yaa ngi cay liggéeyee loo xam ne docteur yi xamuñ ko te ñoom ñëpp ABC gi ñoo ko bokk kon nag naka nunu nag xarafi alquran yi masala yi kenn ku nekk rek mën na cee génne loo xam ne ba xam ne ku ko war a mën a jëriñoo suñ déggoon loolu rek kon kontoor bi dafay dal noppi waaye dama lay wax ne la foo fekk weddikat ñaari jàngoro benn nekk ci moom xamut xam-xam fay oote ne am na xam-xam waaye moom amut xam-xam wala am na xam-xam waaye xol ba faqat ndax néeg boo xam ne ñetti meetar la mënoo cee denc ci bagage ak fukki meetar su boobaa képp koo xam ne sa xol bi faqat yow doo attal nit ñi loo lu nit am nga añaanee ko ko di ko weddi di ko goroojal fekk yow yaa de ki feebar fi qulubi maradun fasaaduma mara maradan kon <coughs> suufiyanke gi mooy nga ba yow itam nit mbindeef nga nekk ci biir mbindeef li ñuy njëkk mooy xilaal bi xilaal bi teerute loolu maanaam péyëb yàlla bi foo xamee leer laaw nuuru samawaati wal ardi masul nóor yi leer ak pay boobu nag nekk ci biir bindee fi walaaw maakum ay na maa kuntum kon moo tax leer gi weeru bu teroo mi nga ànd ak lëndëm ak jaww ji yëpp su ko defee nag jës bu googu nekk ci yow nag loolu mooy xilaal gi su boobaa mbindee fii des ci sa xol bi mooy lëndëm gi ku kan moo koy gis maanaam uh, uh, faman sayida min ku ma saara fal yesumoo ku gis ko weer weer wi ooral mooy ndax yow yaa koy sa kol bi ak sa xel mi ñooy ànd gis leer goo nga man cee jóge koo nag ànd ak aarifine bi laay ci seen maqaama yi walla su ñaar dikkee waxalla ñu àgg ci yàlla waxal la ba sa xel mi xaw a loola man nga cee sukkane ko di ànd ñoom ba ba ngay dëgëree maanaam nit kuy jéem dox fa ñuy ngëb ci loxali de ko teete de ko teete keroog bu mu tànk yi dëgëree kenn dootu ko woo kon ki ne fokk nga gis ñu gis ñaar nit gis ko mooy xel mi ak xol bi fokk ñu nangu li la suufiyanke bi wax nangu googa nag ca ngaay mën a continuer ci biir péyeb yàlla bi da doxal la neex su fekkee ne amula waaye ñaar ñoo xam ne dëgër nañ ci yàlla waxal nañ la nga sukkandiku sa xel mi dénge dénge nga sukkandiku nangu su boobaa man ngay ànd ak gaañi continuer sama xaama ba ba yàlla de xëy la kon loolu mooy xilaal bi lim feeñee ci xarfu jant mooy dañ la bëgg a xamal ne la leer googu balaa feeñ nga soxal bindeef yi yëpp feegi yaa ngi wacc benn mbindeef ci sa xol bi rek nañ bëgg nga xàggee ko doo ko xàggee waaye soo faree ñëpp nag suux nañ loolu mooy xarfu gi nga xam ne jant bi dugg na ca nga mën a gis nga mën a am la ngay am kon sew mu gi mooy mariama waxi mariama moo moo ñu ko jàng indi nasartu lirahmaani saw man man tey dama nisër baax wax du ma li falan ukkali ma yow ma li ramaane mënoon naa wax ndax lillaahi mooy kalifa ak rahmaanu allahu mooy kalifa ak rahmaanu kon mënoon naa wax fala eh, inni nasartu lillaahi sawman waaye boo gisee mu ne rahmaani mooy yàlla mi nga xam ne mbindi yëpp moom mm, yërmaandem ci baas na leen foofu dégg nga looloo tax maqaam bu la jël ne falan ukkali ma yow ma wax ak kojug nit ki wàcc ci nite de xaste de ŋàññe man duma tontu ante moom ki wàcc ci xam nga mbir fa indi loo xam ne tey ñi maanuwul foog ñu xas ko ñi maanuwul foog ñu tuumaal ko mu ne leen man du ma wax ak koo xam ne wàcc na ci niteem gi de xas jullit ni moom de ko ŋàññe de ko tuumaal mu ko du ma moom kon loolu mooy koor soo xàggee ci yàlla doo tontu ñi lay xas ci maqaama bi doo tontu ñi lay xas ci xaal bi da ngay def damaj kon yaa ngi koor kon loolu moo de koor gi lim ne nag eh, sër ramadan la si la fii alquraanu ci lañ wàcc alquran mbo weer woowu ci lañ wàcc mboolem téere yàlla yi téere ibrahima yi tawreet linjiil saboor furqaan ñëpp ci lañ ko wàcc loolu nag dañ la xamal ci suuf yànk gi ne la yow soo jëlee saw mu yowit bàyyi xeeb nit bàyyi naw sa bopp defatu la ko bàyyi xañaan fen jikko yooyu ba sa xol bi àgg ci ramadaana su boobaa daf lay lakkal mboolem téere li la jiiroon parce que kës fu fa lu la it loo foog rek xam nga yàlla aar bi ba mu ci àggagut mi ngi ko doon romb waaye xamutoon ko fa am nag lu ko foo lu ko iitoon ay foogare rek moo ko iitoon ba ci ko léegi nag su demee ba àgg ci yàlla moom dana xam ne kan ndeke man yàlla maa ko gisutoon waaye maa ngi ko doon romb su boobaa ke loolu mooy ramadaana lakkal na lépp lu nekkoon ci sa xol bi ci ay jax ku ku dem ba xàgg foofu xamatu la noonu ku la bañ yow doo ko bañ ku la xas yow doo ko xas ku la romb wéy yow doo ko romb wéy ku la dul jëriñ jëriñ ko su boobaa ramadaana di ka lakkal la yooyu waaye ba fa ba ramadaana ak seegut ku la xañ nga ne ah, pour ma fayda may duma ko jëriñ ku la nuyut nga ne duma ko nuyu parce que booba xàggagu la woon ci ramadaana yaa ngi ci siyaam waaye xàggagu la foofa <coughs> ba fa àggee nag foofu nag fi la ñuy wàcce alquraan maanaa ci yow moo tax Eh, eh, unsila fi al quraanu wàcc nañ al quraan ci weeru koor woowu kon eh, maqaam boobu maqaam yooyu laa leen bëggoon a waxal tey ñu ngi denc nag subaa weeru koor woowu buñ ci sóoboo dafa am luñ ñu aaye dafa am luñ ñu may ba mu yàgg ñu ne bu lii dikkee continuer ca na nga newoon feebar ca la bokk tukki ca la bokk mag mu jeex ay xatam gaare ko ca la bokk jigéen ju gësin ca la bokk jigéen ju am reegal ca la bokk jigéen ju hëmb ca la bokk jigéen juy nàmpal ca la bokk yooyu yëpp boo ci àggee lislaam ne la maa la waxoon ooral waaye bàyyil ñu toppee nii nag suba ajjuma incha allah loolu la ñuy misaal yo la ñuy wax ñu ngi ñaan yàlla barkeel jataay bi képp ku ko dégg mu jëriñ la ku déglu ren yàlla nga ko déglu diwen mbas mii dew ko lii ñu ngi ñaan yàlla ci barkeb altine nim ci wàccee waa ji nga xam ne lënt lënt ya xamoon ca diina yoo ñàkk ya yowoor yi xamuñ ko nasaraan yi xamuñ ko moo ko leeral indi xam-xam yoo xam ne ba pencam yàlla ci la tubaab yi de ixtibaas maa ngi ñaan ci barke yonent yàlla Muhammad boobu korona yàlla na ko yàlla yëkkati yóbbu ko ci barke yonent yàlla Muhammad kum laala gut yàlla bu mu ko laal fu mu wàcce gut yàlla bu mu fa wàcce kum laal te dee xagu la yàlla bal ca dee maa ngi ñaan ñaan gi bu paree nag korona yàlla na jig juliti ci déggoo ci warsak ci am jàmm ba tubaab bi daa ne ah lii kon taxoon a dikk yàlla na ma yàlla nangul ñaan gi allahumma salli ala muhammad wa sallim jërë